Assalamu alaikum, les anciens internationaux du football sénégalais. Asmamoun Mounion Tay Dilen euh, présenter une émission. Moi, émission bi nak comme d'habitude émission bi ñuy def ci bir panel bi diko def chaque samedi euh di jël ay invités ci les légendes du football sénégalais. Euh bi qui, joggé ci euh, Boubacar Sarlokot la semaine passée Nous nañ ci semaine bii ñu ngi ci Victor Diagne waaw ma ñëwoon nag pour euh, pour def benn reportage ci ay nitu démbam muy Ange Victor Diagne ma ñëwoon waagu ñaay pour gis doomu ndeyam xaritam Modou Meng. maa ngi lay nuyu. Euh, euh, waaw di la ziar di am mbégte lool di ñëw seet si la. ndey Victor Diagne ma bëggoon tamit am yu ma la ci laaj ci moom. salaamaaleykum. salaamaaleykum Je le monde du football Dylan euh, Dylan di grand di grand frère Asma amour. ko tamit di ko sante bu baax c'est mon grand bu baax tamit waaw dafa pour laaj Victor Diagne bon Victor di nit ku baax di nit ku am personnalité nit ku yek doomu nit ku dul soppeku ah Victor ma xam ko si lu baax Victor bu muy nekk international avant muy nekk international ba mu nekkee international ba léegi ak bu mu koy nekk dara changé wul si moom Victor maanaam nekk na international jóge waagu ñaay dem dëkk mbaaw waaye bu tegee valise am taal na otom mi ngi waagu ñaay xaritu démbam ñooy xaritu tayam ba léegi muy nit ku am yitte si doomu aadama alalam boolewu ko wax kenn Victor amul ku mu defarul teraanga amul ku mu defalul teranga te du ko waxe du ko kafe Victor xam naa ko màggal Touba day jot mhm. sept heures du matin la ñuy yeesi mhm. yor maletu xaalis mhm. commencé woo copain bi ku ñëw mu jox la màggal ñu ne déet na waaye fa lay yem déedéet yemu fa gàmbu Tiwaawan ñëw mu defaat la même chose ku ñëw ku nekk mu woo la jox la paas ku am jox la nga li jox la nga gàmbu ji di ku waajuram gërëm di ku am ñaanu waajur Victor du rate waxtu maanu na yëwen na tabe na te doo ko dégg mu wax fu mu toog tekk lay def mun na la toog sa ngay jàmbal mun a tekk bàyyi ba nga wiiri mu war a ndànk si pet jox la lu mu lay jox te doo ko déggaat musul am problème ak xaritam man tey jii am na footballeur yoo xam ne Victor a tax ma xam leen. dëgg la Victor bu ñëwee vacances. koñ bi day fees dell. dëgg la moom si boppam wàcce boppam. moom mooy jël baraada moom mooy ataaye moom mooy joxe. dafa wàcce boppam. mënuñu loolu di ko ñaanal yàlla. yàlla guddal fanam. yokk xéwalam. sàmm ko. aar ko aar njabootam. waaw Victor je trouve pas ndekete yàlla day dogal. Mhm. quelque temps dañuy nekk ay xarit. man Victor du lenn yàlla moo ñu boole. te nëbbuma daram dëgg la xam naa biiram xam naa biteem dëgg la moom it xam na sama biir xam na sama biti dëgg la waaw di ko ñaanal yàlla rek yàlla guddal fanam Victor lu mu ti am bokk na ko doomu aadama ah, kontaan naa kon kontaan nit ku baax moom wax dëgg yàlla mooy gis ku baax kon Mour Mbengue dañ lay jaajëfal kontaan nañ trop ci témoignage yi nga def ci Ange Marie Victor Diagne ñu xam teraanga lañ ñu xam lu baax la mhm. papaam tamit noonu la mel yaayam noonu la mel ay nijaayam noonu lañ mel mhm. kon dañ naan alhamdulilah rek ñaan ki nga ñaan mhm. yal na ko suñu borom nangu salaamaaleykum waaw ñu ngi ci ba léegi ci Victor Diagne ah, comme bi ñu génnee ci Modou Meng dañoo ñëwaat ci ñaari xaritam ñoo xam ne bërki démb lañ muy Abdou Diédhiou di alkaan kon ñooñu damay ragal ni dama mëna wax ni ñu jekk ci wax ci Victor Diagne lan mo taxone nak ma ma war leen jël pour laaj leen euh kan moy Victor Diagne question bi yéen ñaar la ko bolé mo bëgg bismillah waaw Victor mom li ñu mëna wax ci mom bari na wax deug yalla parce que waaw yag nañ trop parce que 35 ans mom du. du lu ndaw deug la donc euh, li ma mëna wax ci mom dal xamna né waaw borom dënd bu yaatu la. dëgg la waaw il est très social. dëgg la serviable. Mm-hmm. gëm li muy def. dëgg te gëm lu muy def tamit moo tax sax tey mu nekk international parce que ñun ñëpp bañ fi nekk xale ñun ñëpp ay footballeur lañu woon. mais ñun ñëpp moom moo génn ci loo bi. Mm-hmm. yàlla dimbali ko gëm li muy def am ndimbalu yàlla. ak mm-hmm. encadrement bu baax ba egg si fii tey. dëgg la tey jii bu egsee fii tey. li ma la mën a wax mooy waa këram ñoo tax mu egg fii tey. waaw ginnaaw yaayam ay nijaayam. ñoo ko encadré ak ñi nga xam ne ñi mu doon ànd ñi mu doon àndal mhm. ñoo tax tey ci mu agsi parce que effort yi mu doon def effort yi mu doon def yëpp <laughs> mhm. daf ñun tax mu koy def daraka waaw parce que gëmoon na daal def loolu laa wax ku gëm lu muy def la bu silo sur le plan sport mhm. sportif fongkon na entraînement gëmoon na ne war na mën réussir ci football te loolu loolu loolu moo tax nag gëm motak mu gëmoon nag moo mu ni bu dee wàllu jàngale il était très intelligent ñëpp xamoon nañ waaw yàlla dimbali woon na ko moom xel bu yaatu mhm. dëgg yàlla mhm. macha allah te loolu moo tax sax tey ji ak mhm. environnement bi mu dund moo tax tey jii mu nekk nit ku social ku bëgg daal ku bëgg environnement bu neex la daal ah. xam naa loolu environnement bu am jàmm xam naa loolu xam naa loolu ci moom nit ki bu la wërsëg fekkee fenn boo nekkee fenn ba wërsëg fekk la fa defe naa foofu nga war kon ne di nekk pour wërsëg gën la fa fekk te loolu moo naa waaw boo gisee tey Euh, ba mu évoluer ba muy évoluer cadet mhm. ba senior mhm. ñaari grand place la ñu am fii mooy fréquentation ak ginnaaw kër maamam ay di wax rek boo ànduk say mbokk mhm. keneen koo àndal da lay fàdd te moom ay mbokkam la àndaloon ba muy neex ba ba muy ay mbokkam lay àndal kii nii jeexal ci li nga doon def mooy yëngu ci milieu football maanaam ci côté football professionnel nga pare di doxaat foofu sa sa bopp di sigi

dëgg la bu toll nu mu mel la mës a mel Victor ba mu ko amee dëgg dëgg dëgg dëgg mm-hmm. Victor bu la ñëw vacances ñu ñëw njëkk gis fii lay njëkk ñëw ci koñ bi day jóge aéroport rek ñëw fii Victor lépp lu mu amoon ci alalam da ko doon bokk ak doomu aadama yi ñun man man am na boo xam ne tabaski boo xam ne mm-hmm. xaaju guddi nañ den di fiyee doomu euh, nit yi ay nitam mm-hmm. dinañ yóbbul ay xaru tabaski mu ko doon def ci sutura tey ñu bëri tey jour yi bëri tey dañ doon teg mbaaw ñu yi fëgg ay yenn heures yi ñuy ubbi waxee nii léegi-léegi ñoo nekkoon di naan ataaye léegi fii la añee ñoo naanandoo ataaye léegi ci néegu moon mbeng ko yàlla dafay ñu nag dañuy yàgg ak moom ba muy neex ak ba muy naqari dañuy ànd moom ba keroog ñuy sangoo suuf waaw duñ ci wone waaw yàlla na man ci pro dëgg dëgg dëgg dëgg man ci Victor laa ko xamee quoi ci laa ko centré dëgg dëgg dëgg dëgg ci laa koy yégee quoi bu mu nekk ak son mais les lu nous def ñokoy quoi. fa ñu non ñun la koy passer du dem fenn fenn fenn duñ dem mais les la ci tek ko ci yon dañuy tok waxtan do fa gis manam, yamba wala ko xam te ko xam. vraiment buñ doon wax fi tay tay ci euh, as duñ ko fi mais dama koy ñaan yàlla yal na ko yàlla taxaw taxaw ko ay njabootam yéen itam lii ngeen di def ni as uh-huh. yàlla na ci yàlla jàppale def ni vraiment lii tey lu neex la lu ñu yëg la suñu xol parce que c'est la première fois lii am ni nga ñuy laaj ci Victor ni loolu daf ñu kontaan la mbégte la ci ñun quoi vraiment di kontaan ci yéen quoi jërëjëf jërëjëf kontaan nañ ah lii ñoo ko gisandoo lii rek mooy àdduna waaw àdduna moom euh, nit ku baax lii rek lay ñaan am seede yu rafet kon dama bëgg rek gars yi ñu am nuñ ci jàngat rek ñun ñi nga xam ne tey jii nii ay anciens internationaux lañ xam ne rek benn rek lañ war a nekk lii ñaari maanaam mënuñoo mënuñoo weesu nekk benn kon. lii mooy cosaanu Victor nag ndax Victor ci koñ bii la juddoo waaw ñu toog ak ay nijaayam waaw euh, nijaayam Assane ñoo toog euh, di ko laaj ci Victor tey euh, maanaam sëñ Assane dama bëggoon nga waxal ma ci Victor laajal ma di la laaj ci Victor loo xam ci Victor daal. Mm-hmm. Mm-hmm. Victor moom boo ñu ko laajee ku mu neex a wax lool parce que Victor suñu jarbaat la yàgg nañ lool waaw suñu kanam la juddoo yaayam suñu sœur la waaw euh, fii nga xam ne fi la nekkoon ñu yónnee woon ko fi lu bëree bari bari mu def fi lu bari it lu bari Victor xale bu yaru la amul làmmiñam boo ko déggee mu wax rek ful la la wax du wax jëfam jëf ju rafet man maa ko wax bi ñu ko xamee ba léegi daal jëf ju rafet lay jëf yaru na am na teggin xam na ay nijaayam xam na ay magam xam na ñi muy àndal fu mu mos a nekk daal kafre liggéey waaw ñun nag ñu ngi koy ñaanal di ko ñaanal ba mu commencé ba léegi ñu ngi koy ñaanal ñoo ko toppoon bi muy football ba ñuy football gis nañ ko mu football la rafet la fi football ba muy football jaraaf moom ñu ñëpp dañ daan dem stade ba di ko seetaan yi waaw ba muy football waagu ñaay moom euh, boobu fii mooy siège bi waagu ñaay bu Victor day football kenn du des waaw mënoon li mu doon def lool lool lool lool lool am naa nag toll nañ foo xam ne li mu ci xam naa xaw ma ci lu mu nekk ndax ñu ngi koy seetlu di ko ci ñaanal di ko taxaw gu nekk bëccëg xam nañ ne fa mu nekk fële mu ngi mu ngi ubbi loo xam ne waaw dana am ndam dana am ndam dinaa koy seetaan ci plateau de télévision yi muy wax chaque fois quand il parle c'est avec pertinence qu'il parle parce que li muy wax da koo bëgg ndax football daf il est dans son sens c'était depuis son père Domingo mu ñëw wacc ci mom waaw kon nak xam nga rek waaw ñu ñaanal ko bu fekkee am doomam yi gis naa doomam yi commencé ñoom ñëpp yal na leen yàlla jàpp rek ah doom yi commencé nañ gis nañ ko waaw ah, parce que saytu baax jërëjëf jërëjëf hmm. Hmm. jërëjëf mu ñëw ci beneen nijaayam li may wax ci Victor euh, manax euh, nijaayam ñoo màggandoo ma amaana ne manax Victor bi muy xale bu ndaw laa ko xam mais tel naa joge na bitim réew mais je témoigne ci li muy wax kaf fo yaru na la bien joué bon yu bari maa ma nga fekk bitim réew donc Assane li muy wax li mënatu ma ci teg dara je suis très content dama jàll tombé ci lii maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla ci li mu jublu nii yàlla na ci yoonu yàlla jub mooy Victor ku yaru la Euh, ku am yërmande la te maanaam Victor bi mu nekk star xam na ñëpp xam ko ña mu daan àndal démb ak bërki démb ñoom lay àndal mosul changé ay xaritam te lu mu am bokk na ko ak ñoom temps bi mu nekkee star nekk équipe nationale ñëpp xam ko bu ñëwaan xaritam yi waa àndal waagu ñaay fa lay jëkk a dem fi lay toog di nuit blanche mosul changé dara dara dara ci ay comportement ak ay xaritam xaritam yi mu ànd bu mu nekkee xale ba léegi ñoom lay àndal vraiment xale bu baax la ku yaru la ñi ñaan daal ci li nga xam ne ci la jublu ni yàlla dimbali ko ci bu mu am ci ndam daal dara joyante bi sallallahu alayhi jërëjëf merci tànnaam bu As Mamour ñëwee di def interview ci Victor da nga xam ne sportif da ngay am xol bu baax parce que ñoom ñoo juddoondoo fii zone 3 màggandoo su déplacé woo ñëw ko ñu jeunesse nga xam ni ko ñu jeunesse moom mësoon porté affaire waagu ñaay suñu parents yi la woon ñun ñu jël relais bi mais li ñu xam ci Victor li Omar wax léegi moo ci ne nit ku simple la xeebul ay xaritam yu mu daan àndal depuis enfance te ba léegi loolu lay def mais nit ku am fulla la parce que buy def ay débat télé sax beaucoup de gens dañ koy contre ndax loolu lañ ko yaree parce que ñun xamuñu lu dul dëgg te dëgg bu jotee dañ koy wax te moom xobee la boo xam ne lu avancé loo sport la xam malgré que football na fi mu waroon football ba pare mais li ñu am am ci expérience comme yow ni nga nekkee ci terrain ngelaw di tàggat ay xale soo deful woon sport am xol boobu doo ko def moom la Victor nekkee ci terrain yéen ñu ngi leen di ñaanal ëllëg ngeen jël relais bi ñun ñi ko encadré surtout man ñi ko xam bu baax xamoon naa ko nangu liggéey la parce que liggéey moo ko may. ba muy nekk si génération am en cadet mu surclassé leen ñëw joué waagu ñaay ñu dugal ko ci équipe bi ñu am match bu rëy ak ñaari tali keroog ay ñoom Claude Leroy ñëpp toog gis ko muy éclaté terrain bi ñëpp di yuux si la ñu jëlee Omar Diallo si la jëlee ñu bari parce que waagu ñaay pépinière la woon parce que dañu amoon encadreur yu baax te xale yi loolu lañ doon dox ak seen encadreur même bu ñu gisoon seen dirigeant dañuy daw bañ ëllëg ku leen joxel autocritique te si lancé boobu la mësoon nekk ak i xaritam xeebul kenn ku bëgg nit la lu mu am mës na ko bokk ak jaam yi yàlla ak dogalam mais ñu ngi koy ñaanal mu rebondir li ngeen di liggéey yàlla jàppale leen ci ak seen morom yépp yi nga xam ni yéen a bokk génération ak ñeneen ak ñeneen li ngeen def nag yerte la si ñun ñëpp parce que Victor fii la juddoo màggee fi du si gis sax xool nit dafay am toujours kersa man bu ma gisee sax day sëgg wala mu def benn kiyam yooyu dem na yoonam parce que du nekk di débat ci ay affaire lu futilité li koy soxal mooy wax dëgg te fii Sénégal loolu la ñu war a jàng bu ñu bëggee ëllëg ñu mën a jële Coupe d'Afrique yi nañuy plateau yi nañ ci invité <clears throat> ñoo xam ni dañ ciy wax dëgg gars def analise ñu ñëpp a bokk sans critique résultat du am ñun dañ daan def réunion de critique dañ daan def réunion d'évaluation critique bi day saf-saf pour ëllëg loolu ñu manqué ñu mën ko réussir Victor nag dañ koy ñaanal yàlla parce que famille sportive la juddoo papaam football na moom football na la a du monde ku nekk chaque année wala chaque génération di nga am ñoo xam ne ñooy def flambée yi moom si la bokkoon moom ak génération ñoom Cheikh Sarr ñoom Doudou Fall ñoom ñeneen ak ñeneen bari na waaguñaa ñoo xam ne vraiment liggéey nañ fi loo xam ni waaw dañu vraiment liggéeyal football bi daal te il mérite ñooñu porté maillot équipe nationale yi ñu bàyyi leen xel ndax damay joxe benn anecdote ñëw naa stade fekk ay internationaux yoo xam ne traîné nañu ay monde ñu leen di téye ci bunt war nañ leen mën a ràññee ëllëg ñu mën leen jox carte yoo xam ni kenn du leen téye ci bunt loolu moom dama ko si seetaan ba tàyyi te xuloo naa ko man mii li ngeen di def nii nag asmaamul kontaan nañ ci ak ñi nga àndal équipe technique bi mhm. ñu ngi leen di ñaanal mu yokku yokk yokku seen émission bi yàlla ful ko ba ñëpp di ko seetaan ba ñëpp di ko dégg techniciens yi ngànk football bi yëpp tamit di ci prêter attention parce que ñun ñëpp Sénégal ñu ñor euh, football bee ñu ñor lu ko avancé loolu la ñëpp di seet jaajëf. jërëjëf ah kontaan nañ trop. waaw ci témoignage yi ñu jëlee fii ci ay nijaayam ñu am ci mbégte loolu ñew ci nijaayam papsia dik diko ko ci Victor euh, ci jikko mak yooyu comme ya ko yar voilà defe ni mom euh, ku ci mën wax nga eh, dafa nekkon nit ku kuma won nek sama jarbat yaayam nek sama demi sœur mu jodo suñu kër mooy yoré len di encadre encadré di leen yóbbu école di len daloo di len yore ay cours mu nekkon nag xalé bo xamné dafa waaw Victor waxam bari wul won

du dara amul benn problème voilà voilà exactement. voilà voilà alors mu nek nak xalé bu comme ni ma ko waxee rek. timide ba pare bëgg football. alors bi muy commencé yaa ji ànd si woon. il a fallu ma insister man. Uh-huh. pour yaay ji bàyyi ko mu football parce que yaay ji jàng jàng la gënoon privilégié. dëgg la alors yaay ji ma man dal duma ma sañoon Victor day tok jang ma ko comme mom xalé bi mom football la def ci xelam. Euh, njàng amno une importance c'est vrai mais euh, te ñoo koo bàyyi rek football mu ne ma pas ah, kon de parce que yaa yore seen éducation. man ko je prends l'engagement sur moi. de laisser partir jouer au football. parce que je je vois en lui. euh, un talent voilà exactement. et l'avenir m'a donné raison. voilà ci noonu daal le ko jàppee di jàpp. ba commencé le football nawetaan nit ñi commencé wax Victor nangam Beaucoup de droits à aussi en même temps voilà ah, voilà voilà alors c'est euh, uh-huh. euh, sa première sortie à l'étranger Portugal uh-huh. <laughs> voilà exactement ah. <laughs> voilà voilà carrière mais premier vous sélectionné équipe nationale vous ah. euh, avez ko équipe si mais dafa mbégte bu reuy am fierté bu reuy waaw euh, té lolou mu nekkoon lo xamné ne won parce que xamoon Victor mom tôt ou tard fay day yag rek mais il va jouer en équipe nationale. parce que daanaka daal da nga gisoon gisoon nga lepp waaw. <laughs> waaw gisoon naa vraiment wax dëgg yalla gisoon naa loolu ci mom quoi waaw. waaw mu nekkoon nak une fierté pour toute la rue pas uniquement pour la famille mais pour toute la rue waaw. ki mom nijaay Victor la moko yar waaw waaw kontaan nañ trop ci témoignage yi nga def ci moom am nañ ci mbégte loolu. Victor Papa Ndiaye. Victor Jara. Victor ok merci. waaw asalaamaaleykum. ñu ngi leen nuyu ku si nekk sa tur sa sant waaw Victor grand Victor moom suñu grand la am na ñun sax fekkewuñu bu ñuy fubal mais am na lu ñu jot a si moom. Mhm. grand bu baax la te ñun aussi bu ñu ñëwee. fekk nañu muy muy recenser ay booy. di leen jël di leen yóbbu ci centre de formation. te loolu te loolu lu baax la quoi rafetlu la. jàpp na ci lu bëri. demee ci cadre nawetaan yëpp. gis nañu mi ngi jàppale jeunes yi. ku si nekk mi ngi xool li ñu lay jéem ci club. pour nga jéem am foofu dara. ah waaw ah, salaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp di waaw grand bu baax la quoi. waaw booy yi nekk fii ci seen bi yëpp. waaw da leen di jàppale seen talent. Ah. waaw di xool nu mu leen mën a yóbbee. Euh, ci kanam daal ñi gën a ñi gën a avancé football bi di leen di leen conseiller daal surtout discipline bi ak kii ak rigueur rek travail lépp daal la lépp daal travail daal la ëmb daal waaw teg leen ci yoon daal waa waaw loolu daal xam naa ne daal yàgg na ko def ak booy te mi ngi jël xelam ak xalaatam di ko jox booy daal loolu daal xam naa ko ci ah, waaw grand bien la grand ah, naka ah, ñu ngi leen sant di leen gërëm waaye waaw ah, grand Victor moom ñu ci mën a wax moom bari na waaye dañ koy tënk rek parce que Victor moom ñun màgg nañ fii waaye fekkee wu ñu jëm waaye xam nañ li mu fi def ak lu mu bëggee quartier bi ak euh, li mu fi jot a liggéey yëpp gaa moom moom euh, bokk na ci ñi ñi ñi ñi defar waawu ñaay sax loolu laay wax ka bokk na ci ñi defar waawu ñaay dante xamuñu ko noonu sax ñun ñi nga xam ne ñu ñoo mujjee juddu mais liñ dégg ci moom rek doy nañu quoi bu ko defee nag xanaa nag euh, moom daal ñu bàyyi ko suñu kanam rek mu commencé mu nekk fi di tete booy yi xam nga ñuy ànd ak moom mu ñuy wan parce que moom bu dul dara sax moom joué na fu ne quoi. Grand Victor moom bañ laay si moom da ngi si sawar parce que fii lañ nekk nekk ay xale yu ndaw nekk si quartier bi nekk ay jeunes nekk ko équipe bi muy coach équipe bi nekk grand bu baax di dimbale waa quartier bi. dégg naa ne sax am na benn centre bu mbir bi mbaaw di si dimbale ay jeunes foofu noonu dégg naa am na ay xale ba mag académie la sax. mu si dimbali gars yi bu baax Grand Victor moom li ko mën a xam moom mooy waawu ñaay moom fii moom sans faute quoi parce que moom da si jàpp bu baax quoi ko def football bi nii moom mu ngi gis ne mu ngi dimbali jeunes yi baax a baax waaw comme noonu rek Adama nañ ci feefam xanaa continuer rek am keneen ku ñu seeti fii ci kanam léegi-léegi aca comme ba léegi ñu ngi ci biir waagu ñaay di woon seet si nag koo xam ne daanaka ñu ngi koy wax xutum jaxate euh, daanaka mën naa wax ni sax jeune ak euh, Victor en cadet euh, nawetaan ma doon nagu ñaay di la laaj Cheikh Xutub Jaxate euh, jour ancien ancien jour bu tang bu dëkk waagu ñaay ñu nan ko Cheikh Xutub Jaxate mu bëggoon ñëw nga wax ma ci Victor waaw salaamaaleykum ma ngi leen nuyu yéen wa Elite Sport euh di sawar ci wax ji Ange Marie Victor Diagne bon li ma ci mëna wax du nekk lu bëri xam naa bo wéré quartier bi yëpp même phrase bi la lay wax moy qualité fulum faydaam ci lepp naka ah, depuis bi mi nek Blaise Diagne di def sport euh, bi mu ñëwé nek cadet waagu ñaay dugum dugum si caraaf dem équipe nationale dem nek professionnel liñ ci mëna wax mom euh, en grosso modo moy fulu la ko defee té bu mu defee nek professionnel ba dellu si aussi liñ ci mëna waxat tamit moy fañ ko bayiwon fa la nekkat ñamu doon andal la andal quartier bi bu ñuy wax tay ji euh liñuy mën a jóg di ko def si quartier bi moom mi ngi ci association yeeg lépp boo xoolee Ange Marie bi ngi si biir loolu daal xam naa ne mën naa ko seede si Ange Marie Victor Diagne te bon Modou Maama moom mi nga xam ne moom mooy posé sax xam na si loolu te football loolu ñun ñëpp ñun ñëpp ñoo defandoo suñu jeunesse fii ici à Waagu Ñaay ah jërëjëf jërëjëf ki nga xam ne nii kenn du ko présenté sénégalais yi parce que kii mooy nit koo xam ne ku sonn ci sport la ku jàppale ay nit tey jii ni bañ nekk dara ki nga xam ne tey jii nii ci nawetaan daana mën naa wax ni moom moo njëkk am vision ci nawetaan di maanaam di jox jour lu kenn yéenewul footballeur kon tey jii nii su ma ñëwee nag romb ko daj euh, ci buntu kër Pa Alaaji Mansour Mbaye kon rafet na ma laaj ko ci Ange Marie Victor Diagne parce que xam naa ni mën na wax ci moom. waaw onze billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim barke borom koo xamul noo koy def def ko ni ko def ko ni ko ñëpp def. nga posé ma question ci Ange Marie Victor Diagne. victoire comme la victoire. Victor Diagne dafa beaucoup de joueurs yi nga xam ni yii ni peut-être dina ma xàmme wala du ma pas mais man dama ko suivre parce que dafa jóge ci dara dem au sommet biñ koy yóbbu équipe nationale boobu temps kenn xalaatul ni Victor dina mën na dem équipe nationale mais talent bi mu yore talent à l'état pur mu tombé Claude Leroy Claude Leroy xar ci bakkanam parce que a na ni kii talent caché la mu rey ba jóg équipe nationale yàlla def li muy def mu nekk xale bu am personnalité ba léegi boo ko gisee ci ay débat da ngay gis ni kii c'est un pur produit du mouvement sportif parce que mouvement sportif ku ci jógee da ngay am personnalité ba pare da ngay discipliné alors yàlla dogal na mu am carrière professionnelle yàlla def li mu def mais nit ku nekk ak sa wërsëg mais terewul ba léegi boo gisee victoire victoire maa ngi naan victoire parce que c'est la victoire boo gisee victoire muy muy muy muy jëf wala muy wax nga xam ni kii nitu personnalité te personnalité boobu mu am ci biti moom la amoon ci biir terrain défense bu mu gëdd bu la songee nga xam ne victoire ngi ñëw comme maa ngi fàttaliku fii en 92 bi ma fi indi équipe nationale euh, ñoom Lamine Mbaye nekk fii ñuy joué contre Ngelaw contre Waagu ngeen nekk ay joueurs yoo nga xam ni exceptionnel à tout point de vue te pourtant amul leen woon encadrement bi nga xam ni moo amul ay wërsëg bii nit ñi am actuellement nii ñu leen di tudd booba temps ñii yéen amu ko mais bu ngeen ko amul léegi si Victor mënoon na nekk tey puisqu'on parle de lui mënoon na nekk tey le meilleur joueur d'Afrique parce que joueur bu fekkee am un talent am culture générale parce que beaucoup de gens muy wax nga xam ne culture générale am personnalité am yar ku mu gis dox la cër kooku mën na mënoon na sori yàlla nag moo def carrière am demee ni mu demee euh, mais moi je crois que Victor fait partie des rares talents d'Afrique je dirais même pas du Sénégal yi ils ont surpris tout leur monde. Y defal ko tawféex ba li mu namoon ci fubal yàlla def ko ci doomam def ko ci de dom alors les malheurs disent ça va te paraître un peu bizarre parce que moi qui te parle je suis issu du mouvement sportif du mouvement associatif j'ai été président de deux ASC président d'honneur de plusieurs ASC mais les le Sénégal ne peut pas se construire sans les anciens footballeurs parce que ci une bire, compétence y a ngi ci gens li ngay des jeunes jeune jeunes ci ci football ngeen des le sport du Sénégal en général les footballeurs les basketteurs les handballeurs tous les sportifs tous les anciens sportifs y compris les anciens lutteurs vous n'êtes pas toog ngeen toogoon ñu ni Macky Sall les leen woon ni leen dama bëgg ngeen ñu xoolaat le Sénégal d'après Covid 19 bi bu jàllee naka la bâtir un Sénégal nouveau kon sommes def fi lu kenn mësul def te ce serait une première en Afrique. léegi le li tu as tout à l'heure tu as parlé de Boubacar Sarr mhm. lui aussi il a été un gagneur de tout le temps du ma ci cap dara ñëw sama buntu kër fofu la daan nekk mom ñoom ak Seydou Touré euh je dois dire que l'histoire de de Yogo est partie de ce grand place là donc fi nga taxaw ni dima ma interviewé ku nek jaar na fi ku nek jaar na fi équipe nationale ñëw na fi jaar kër age Mansour Nordin Mursali ñëw na fi jaar kër age Mansour képp kuy gagneur la la wax képp kuy gagneur ci Sénégal à tout point de vue jaar nga fi donc fi place mythique la kon euh, ñu ngi ñaan yalla idée bobu ma joxe à travers vous à travers votre euh, panel yalla défal joueurs yoyu ba ñu jàppaat football Sénégal parce que euh, le jeune là qui avait une très belle frappe comment il s'appelle encore qui ki Sikap, Sicap de kon Maroc Tout le monde nous ndaw Moussa Ndaw Moussa Ndaw le football est entre des mains de des gens qui n'ont jamais porté de culotte sauf le dimanche il a raison le football doit revenir aux footballeurs. On ñu une ñu coupe d'Afrique mmh. sunu équipe yi le championnat d'Afrique nañu fab football bi jox ko footballeur yi fab lamb ji jox ko mbeur mbeur yi jox ko lutteurs yi basket bi jox ko ancien basketteur non noonu la ñuy def politique mooy yor rew politiciens yi ñoo jiite Sénégal médecins yi ñoo jiite médecine sportif yi nañ jiite sport bi allahumma salli ala sayyidina Muhammad ak li nga xam ci mom wa avant tout ma ngi nuyu Sénégal yépp di leen sant di leen ziar di ñaan yàlla mbas mi dal ci àdduna bi yëpp yal na ko yàlla tegg ci barke Seydina Mohamed bon maa ngi nuyu joueurs yi nga xamante ne ñu ngi ñëpp en compétition di nuyu joueurs ñi nga xamante ne ñoom ñëpp wér nañ ko daal si mais Victor moom wax ci moom dina ma yomb parce que on a grandi ensemble amandoo entrée en sixième defandoo euh, cours de vacances ensemble ndax temps yooyu vraiment loolu bu doon mi ngi am ba léegi dina nekk lu gën a rafet ndax boobu suñu mag yi nga xamante ne ñoo nekk ci quartier bi ñoo ñu jëloon di ñu former pour ñu nekk ay élèves ñu def benn euh, waa jaon seen bopp xale xale yi nga xamante ne yëpp ñoo amoon naan transième ñu boole ñu di ñu defal cours de vacances mais bi ñu jógee ci foofu Victor nekk jour boo xamante ne talenté Victor Victor kenn mënu ko wax ci ay témoignages yu gàtt Victor mi ngi ci yar bi mi ngi ci tey bi mi ngi ci dal bi ak bëggoon nag li nga xamante ne moom lañ doon def muy football vraiment man bi ma koy njëkk seetaan muy terrain HLM entraînement waagu ñaay bi ñu paree mag ji rek la ñu joxoon ndijaayam muy Pam Ndiir parce que xam naa ku xam Pam Ndiir xam Victor xam ne football warul génn kër googu parce que ñoom seen bal dafa nekkoon ci seen tànk moom ak Boli frère am ñoom ñun ñoo màggandoo ensemble muy nit ku baax nit ku ëmb nit ku yaru nit ku bëgg li mu doon def muy fubal ma koy ñaanal yàlla nit mu réussir ci ba yor ci ay club parce que moom ba léegi fubal rek lay dund te nit kii li nga bëgg rek loolu la lay yàlla jàppale nit ku baax la nit ku yaru la nit ku bëggoon li muy def la vraiment daal ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla jox ko ay ndomba tànk ci sport bi moom ak joueurs yi mu nekkaloon yëpp di doom ci pa Alaaji Mansour mbay waaye ba léegi jeexul ndax ñëw nañ ci beneen grand ñu naan ko grand Moussa Niang mu fekke lépp mi jekk na si wax ci Ange Marie Victor Diagne as Victor Diagne maa ngi fàttaliku son premier match international ñu ko joué woon stade jour boobu moo dugaloon sur mu nekkoon équipe nationale espoir la mu dugaloon but boobu sur penalty bi ñu génnee sax ndeysaan gars yi jox ñu la moo ñu reer man la dajal na ma mais grand reeru guma man maa ko man maa ko jox sax mu reer quoi loolu moom toujours dama koy dama koy fàttali quoi man nag man nag ma si am kersa quoi non mais man Victor man la man sama jour la man jaraaf man la mhm. non Victor sax wax si moom ndeysaan du mën a doy bi ngeen di jël euh, coupe régionale xam ak coupe départementale beeg yooyu bi nga ko jëlee équipe nationale loo ci yëg non dama xam na ne lu war la mhm. parce que Victor bi koy gars bi ko Colorado di jël mhm. Sénégal 92 il était gars est-ce que dina am expérience est-ce que dina am maturité pour mun taxaw ci match mel mhm. non on a vu Sénégal 92 victoire la marqué un but historique un but d'anthologie bu mu dugaloon contre Kenya. Mhm. bi ñuy 2 3-0 def Mok moom Bokande ils avaient marqué. waaw mhm. tey jii nii boo ak euh, football moderne bi tey jii jour nga mun xol gis di ci gis victoire. euh bayina football moo nekkoon euh, Liverpool sans capitaine ba. Gérard ah. li ngeen waroon def def ngeen ko football ngeen bégal ngeen bégal ngeen Moussa Niang bokk Moussa Niang moom bég na si yéen lool yàlla na alxuraan bég si yéen asalaamaaleykum maa ngi nuyu àdduna wërngal këpp nuyu mon frère moo si moo asmaamu di nuyu mon Eli Hadj Marie Victor moom comme li nu gaañu waxee rek euh, macha allah géej la da tibb tuuti rek bàyyiwaat jox keneen mu tibbaat tuuti mais man nag as dama lay teel a wax man ci côté Victor laa far ndax waagu ñaay ñu màggandoo ñu defandoo lépp quoi kon boo man maa ngi rangé wu ci côté Victor quoi damay suuxlu ci question yi ko gaañ yi jàpp maa ngi lay nuyu ma yàq ñi nga àndal yéen ñëpp di am mbégte ci ki nga may laaj euh, ndax li nu bokk ndax ki mu doon ak li mu tekki ginnaaw bi ma leen nuyoo ba pare Euh, ma bëgg a wax rek ci koo xam ne jàpp naa ne kenn la ci commune de Biscuiterie ci jaar-jaar ci yar ci teggin ak ci dayo ndax yàlla dogal na fi la juddoo yaroo fi joué fi tout tànk ba ni mu nekk mag ba ni ko yàlla yóbbu mu nekk international euh, ba dellu si fii ci senegal mu am nit ñi ak nit ñi jàmm ak salaam Victor bi nga xamoon démb moom nga xam tey moom ngay xam ëllëg ci léppam nag ci yar la ko teg ak teggin vraiment mu nekk koo xam ne nii itam suñu fierté la parce que tey bu ma waxee mun naa ne waxal naa waa ngelaw yëpp euh, ndax Victor nekk na nit boo xam ne non seulement man de sama xarit la mais xaritu ñëpp la kenn mës ta dégg ci moom mu wax lu ñaaw kenn mës ta dégg ci moom lu mu wax loo xam ne nii bañ na ko ba sax saa ñu ko invité tele ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk tele bi mu nekk ngay jàpp ndax kenn ku ci nekk xam na suñu diggante ak vraiment mu nekk koo xam ne euh, ñi ngi ñaan yàlla sunu borom may nu keneen ku mel ni moom ndax vraiment jaar-jaaram rafet na ci ay qualité am euh, Victor wàcce na boppam euh, tey mënoon na ñëw fekk sax ñun ñuy fubal ne ko cheikh bi kaay kaay nga fubal day dem sumiku ñëw dugg ci terrain bi nekk ak ñun loolu weefteem la parce que bu caaxaan jeexee dëgg des ki nga xam ne buy fubal da nga koy teel ay dàllam bu demee ba ñëw des fois ngay ñëw di bokk moom terrain jikko bu baax la te nekk na nit koo xam ne nii moom xamul ay tendance ay waagu ñaay ak ngelaw ak abe gëmul yooyu moom fu fépp jàpp na ne fa la bokk euh, xale yi tout tànk yi ku ci gis comme ku war a mën a conseillé mi ngi lay conseillé te sax du ci feeñ vraiment nekk na nit boo xam ne li ñu mën a wax ci moom bari na li ñu koy ñaanal yàlla rek mooy suñu borom ubbil koy xéewal euh, buntu xéewal yaa ngi ci kanam euh, yal na ko sport fay yal na ko Sénégal fay te ndax sigal nañu ba tàyyi bégal nañu ba tàyyi nit ki nag boo bokkee ak moom ndey ak mu mel nen ni da ngay bëgg ñu koy wax kon boo bokkut moom ndey ak baay mu mel nen ni soo amee xol bu laabir da nga ko war a wax maa ngi lay maa ngi koy ñaanal suñu borom def guddal fanam wéral cëram moo xam li mu bëgg moom yàlla na ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam taalu bi nga wàcce nga sa bopp vraiment yen ñaar war ngeen a nekk ay xarit war ngeen a mën a ànd parce que yéen a bokk jikko mais dinaa ci dugalaale ci yow maa ngi leen di ñaanal suñu borom ak équipe bi ngeen liggéeyal yàlla yàlla barkeel euh, kër gi euh, yóbbu ko ci kanam defal leen fajuk aajo zahiran batinan dafa leen mucc ak mucc le barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kontaan nañ trop ci yow ibu ci seede yu rafet yi nga wax waaye noonu rek nga mën a mel ndax da ngaa baax waaw grand gré moom foofu moo ñëw. ndax lépp nga fekke man loolu doon laaj ci moom rek euh, ci Victor Diagne. Victor euh, neex na def si moom témoignage parce que c'est un garçon boo xam ne il est toujours égal à lui-même il est très sérieux il est très calme il est très pondéré. man nag j'ai eu la chance de de jouer avec son père malgré que papa mon magon Domingo Diagne temps boobu maa ngi nekk Estella Domingo Diagne nekk Espoir de Dakar ak ñoom Doudou Diong ñoom Pape Diémé ñooñu ak ñoom Moussa Ndaw donc j'ai connu son père un excellent footballeur d'ailleurs moi li ma li mu mënoon sax de Victor mënul mais moi ma priorité la woon pour football là un excellent footballeur d'ailleurs li ma xamoon si grand bu góor ñoom la gis Victor c'est un garçon très sérieux très pondéré comme li Ibou wax rek xamul waagu ñaay xamul HLM xamul benn tali xamul ngelaw man fii may waxee fii si ngelaw fii bi ma jógee HLM après sama deuxième équipe fii laa ko footballé waaw fii laa footballé sama première finale de zone sama deuxième finale de zone en 76 ñu nag Cité Port booba maa ngi fii ngelaw j'étais leur capitaine d'équipe yow mi encadré naa la cinq 5 ah la HLM 5 lu wóor waaw est-ce que tu as compris Donc, tax ñun suñu satisfaction mooy seen réussite yàlla na leen yàlla jàppale daal Victor daal c'est un garçon très bien qui est très bien vraiment amul benn problème ku baax la yàlla na ko yàlla jàll jàppale merci beaucoup merci waaw jërëjëf wax ji rafet na grand gré waaw dinaa sawar nag di wax ci Victor Diagne parce que Victor vraiment c'est quelqu'un boo xam ne ñun ñoo bokk génération ñoo football ndoor ensemble moom tamit mu nekkoon daanaan bu mag mën lu muy def def ci fulla ak fayda ak jom mais mu nekk un garçon très cool calme et effacé mu nekk ku yaru mu am benn qualité bu moo xam ne vraiment bëggoon naa ko ci moom trop trop trop trop mooy Victor quel que soit après niveau bu mënti am dafa amoon benn xaritam bu ñu wax jaaga bu dëkk waagu ñaay tey ji yàlla def na moom tamit ma nga ca Amérique mais Victor saa yu ñëwee lu muy njëkk a def bu tegee saagam day ñëw kër jaaga loolu neexoon na ma trop ci moom dom adama quel que soit ce statut amna ño xamne bu len yalla defé li len def tay fan dan woto fa lañu woto watoo tey ba leen daan ñëwal moo leen di parce que duñu soppé ko ben yoon té nak mu nek un grand homme un homme de valeur ba paré tek ci mu bëgg sam ben jarbat bi wax Kara bo xamne Victor mom aussi moko gissal bopam bëggal ko bopam lepp lo xamne man la waron ma di def sama jarbat Victor di moko defal kon bok vraiment tay man bi tay ji wax deug yalla bokk naa ci ñoo xam ne ils sont mieux placés pour wax ci Victor Diagne moomoon ay qualité humaine amoon qualité footballistique nekk nit ku nite wax dëgg yàlla yaru cool parce que ñun ñëpp xamante woon nañ d'ailleurs mi ngi nekkoon fii école bi CS bopp foo xam ne sama grande sœur foo la nekkoon donc xam nañ kan mooy Victor Diagne en tout cas daal wax dëgg yàlla li fi sama grand gré wax ak Ibrahima mii liñ fi wax mënu ma wax lu ëpp ñoom li ñu wax parce que ñoom it wax dëgg yàlla macha allah dégg nañ li ñu wax te kàddu gi rafet kon boog di ko ñaanal moom tamit fan gu gudd wér gu yaram ak mujj gu rafet. fekkee na lépp daal waaw damay ñëwaat ci keneen ki rek muy Bouda Souali le grand avant-centre de tous les temps. waaw <laughs> ah, parce que Victor moom mosul changé ñoo jaagandoo fóolandoo neetaan yàlla daf ñu dajee GIA mu jóge bon jotu jotu signé mu jógee fa dem jaraaf ba yàlla daf ko tey li muy doon. mu doon international yëngal boo xam ne ni fii fii Sénégal amitié bi def fi loo xam ne lu kenn deful yàlla def ko chance boo xam ne tubaab yi naar yëpp di ko topp di ko di ko topp macha allah maanaam mais nag adduna moom yàlla moom lu mu namm la foo yemale quoi mais nag na gën a góorgóorlu parce que am na benn vision boo xam ne jógul ba léegi bàyyigul sport dem na bu mujjee ba dem bàyyi football yi dem man coach ma ne tànn waag moom bu ma demee waagu ñaa à cause de lii xalaatuma sama àdduna naa coach parce que diggante wax ma ko moo tax ma dem waagu ñaay di ko yàlla di la ñaanal yàlla légui nak lu ko déssé ci àdduna na gënu gor gor gën talal loxo yalla parce que mosul changé du moo toog mu ne ma eh bu da am ci yëkkati doole bi ne ma ah bu da am lii yow bu boobu kër nga ñëw foo la ñoo defal do lepp kon nag nit bu amee lool rek nit am daw la sax moo ñoom Cheikh Sadio fa nekk doo waagu ñooy lu baax la ñuy dégg ak ñoom frère boli boli sax mooy sama gën a doon sama xarit parce que moom laa ko njëkkoon xam staff yooyu quoi ñu daay yi daje fii seen Adama Ndiaye ma daal la ko gën a ñaanal na gën a góorgóorlu lu ko dese yàgg moom comme yéen fi yéen fi ne yàlla na yàlla ngeen am doole ba yàlla jàppal leen ba ngay tawee di yor équipe nationale ba yàlla yaaki joon man daal loolu amul li may wax vraiment di la gërëm di la sant ñu ngi continuer tournage bi ba léegi di wër ci ñi jege woon Victor ñi teg Victor ci yoon mooy fi ma ñëw nag mooy fi ma war a ñëw defe naa fii nag laa fi mooy li naan dat daj docteur Mouhamed Mendy ki nga xam ni tey jii nii mën naa wax ni moo tette Victor moo ko teg ci yoon mu ñëwoon ci moom nag euh, doon wut ay témoignages ci Ange Marie Victor Diagne euh, Mohamed euh, ma ñëwoon nag di la laaj ci sa si sa raq bisimilah. waaw as maa ngi lay gërëm si cerce bi vraiment ça m'a fait plaisir. wax ci Victoire nag moom loo xam ne la nag moom buñ ko daanoon wax fii gëm naa ne boo moo tes une dinañu def une semaine la un mois quoi parce que daanaa mujj <laughs> on a passé des moments yoo xam ne vraiment c'est extraordinaire quoi bon Vic moom euh, vraiment bu muy ñëw c'était en quatre-vingt-onze quatre-vingt-dix bi noonu mm-hmm. bu muy ñëw man sa affaire dama bett ko waaw parce que juste dafay ñëw jóge nawetaan. boo xaw ma sax parce que xam man nawetaan yi moom période boobu sax bàyyi ma ci xel quoi. mais déggoon naa HLM5 boobu maa ngi woon HLM5. ñuy wax ne ba am na benn booy boo xam ne nag mu ngi nekk waa gu ñaar booy Victor Diagne macha allah quoi. xam nga booy boo xam ne am na avenir cool daal bëri si quartier bi quoi bon je me suis dit ah am naa talent buy génnaat quoi génn am na benn talent buy génn. yàlla def na ko effectivement bu mu paree ku loolu waa jël ko indi ko jaraaf bon man lu ma gën a kii sax frappé bon Vic dafa ñëw premier jour bu mu war a ñëw entraînement directement la ñëw HLM 5 sesim xam nga bon comme que ñëw na bon ñu ànd dem entraînement dama entraînement le deux deuxième jour mu ñëwaat demaat entraînement ñu tegale ko ci semaine ba mu jeex xam nga je me suis ne booy bi lan la bëgg exactement quoi parce que mhm. man maa ngi waaj a dugg ci pax bi xam nga booy bi mu ngi door a xew mhm. nan la wara mëna ñëw rek. jégué ma noonu quoi. bon je me suis dit même Vic bon il faut ñu waxtaan quoi mu ma amul ben problème comme bon mom mom yalla dafa def mom dama ben yar bu nek ci mom bon parce que Vic du fale nga dugg ci gardam pour mu mëna exprimer au carrément génn quoi. parce que euh, jour dafa am ben caacaay boo xam ne bu nekkul ci mom waaw talent bi di ki day day sonn parce que dafa. dafa nekk si kiyam quoi xam nga réservé wu quoi. téye boppam daal waaw ah, dafa téye boppam. lu ko am lu ma may chance mooy bu mu ñëw nekk après bon ma ñu toog waxtaan discuter ma ne ko man booy bon dama gis nga may fréquente nii lan la xew quoi mi ne man dama ñëw jox la sama bopp daal. Mm-hmm. affaire boobu nag bu ma waxee ne mën a jox sama bopp affaire bi nag marqué ma. dëgg waaw parce que xam nga nit bu ñëwee. Mm-hmm. bees mun jógee nawetaan xew. xew jikk ji Koulibaly mooy entraîneur Sénégal mu ngi door a bees moom tamit. Mhm. ñoo jëlee ko nawetaan indi ko yóbbu ko ci équipe bu toll ni jaraaf. Mhm. booy bi ñu nee la moom. Mhm. jox naa la sama bopp. te yow moom grand boo xoolee yow la desee. dëgg la bëreetul. xam nga da ngay da ngay xam nga. dafa rëy daal dafa xam nga. man ko amul dégg naa la mais il faut ñu waxtaan après mais dama am problème man daal yow laay foo ma woo mu comme ça bon vraiment noonu la ñu waaw toog waxtaan ma ne ko nag condition bi léegi-léegi lii mu ne ma ànd ah, nangu naa loolu ma wax bon Vic vraiment maamam yàlla ko yàlla xaar àjjana maam bu jigéen mm-hmm. bon parce que maire bi affaire yi dafa demoon ba moom tamit impliqué wu ci. Mm-hmm. xam nga woolu ma ma ñëw xam mu wax wax wax man tam ma tegal ko lu mu koy tegal. Mm-hmm. maire bi ne ma daal man daal xaw ma lan la mais yow sa wax moom. vraiment doy na ma quoi. xam tamit même chose ci la ñu démarré nag. dëgg waaw ci la ñu ba yàlla may ko tey lu mu lu may nii. Mhm. waaw amul dara daal loo xam ne moom. bett lu ma am ni amul dara lu ma ci bett quoi. waaw parce que je ko nee dañuy waxtaan mu ñëwee dama ko nee di nga dégg supporters yi lu ñuy wax. Mhm. di nga gis ay dirigeants yu la mhm. ne la na kii parce que kii jeexal na. xam nga. mais te man leen ne ndaanaan rek ñu mën a ànd yow lu tax nga ñëw joxe suba xam naa kon bokk boo naree déglu ñenn ñi rek en dehors du terrain rek mm-hmm. man je préfère me retirer wu xam nga mu ne ma non man aw ma problème boo xool man foo ma ne foofu la foofu la mm-hmm. waaw lii nit ñi di wax si mbir bi c'est pas mon problème mm-hmm. te effectivement période boobu tamit moo fekkoon moom may dutee jàppal bàyyi xam nga léegi ma ne bon kii pour ma ànd ak moom il faut man ma joob mun a nekk si niveau xam nga

comme yeneen équipe la. mais nag mooy ñaari équipe yi nga xam ne ñoo gën ci Sénégal Jah Jaraaf la. am nga chance talent bi nag mu ngi fi. fais-toi plaisir yow bu am dara looy ragal yow deful li nga xam ne moo la moo la war mais nag il faut être sérieux waaw il faut être sérieux dans la vie. talent bi noo ko mënti am tamit il faut être sérieux xam nga li mu la mën a wax daal mooy comme que ne nga joxe nga lépp léegi da ngay toog ñu lay womat ngay dugg fu nga war a dugg nga xool. ci nga noonu la ma noonu lañ toogee premier match mais xam nga gars yi dañ ko doon xaar bu ñëwee macha allah macha allah jub moom match am yëpp moom jaraaf moom nu mu ko débuté ba moom muy dem macha allah. bu ñëwee première année am defe naa la ngeen final coupe du Sénégal yéen ak ci biir match bi Victor raté na ci penalty bi mu ratee penalty yi amoo loo ko wax wala. Euh, <laughs> je me rappelle bon penalty bu mu amee man maa ko doon maa ko doon jëli. waaw maa doon jëli penalty pour dóor ko. Uh-huh. xamoon naa niveau champion euh, match boobu fu mu ah, tolloon te man bu mu ko dóoree rajo ko sama yëngalu esar bu yëngalu ma ah. waaw parce que man sama fit may na ma loolu xam nga bu ma ñëwee nag buy pour jël si bal bi moom mu jël ko téye ko xam nga man ak ma ne ma ne la muy xam nga mu ne non mu dóor ah. bon ma ne la muy saar dama non bàyyi ko mu dóor ma a ko am problème mu dóor raté mais asma victoire bu ma raté day jooy uh-huh. xam uh-huh. day jooy di uh-huh. jooy <laughs> ba ñu mitaan ci biir marché bi ci marché bi bon bu ñu jógee Versailles pour te dire rek moo tax ngëm rek moo am solo quoi bu ñu jógee ci Versailles yi les soi-disant les sourciers accompagnants yi accompagnants dara ñoom ñu ngi toog sur xob di jooy <laughs> parce que dañoo ne jaraaf day gañe ba pare xam nga waa ja bu ñu gisee dañ xam nga ne bu ñu waxee loolu. Hmm. léegi nag ñoom benn bi raté ko. ñu def ñu def erreur Aliou Diallo taal ñu ko. <laughs> ñu jeexal match bi. <laughs> gars jeex na. Hmm. bon mu ñu mitaan noonu rek ma fekk société xaw ma soit dix ans xaw ma. waaw dirigeant yi par nekk foofu jooy. ma jël équipe bi dugal ko ci roxo bi. Hmm. naan booy déglu ma fi baax. Lamine Sarr Khadim. il ngeen ànd ak tey dangay ngay arrêté jooy wala ma wax ma wax euh, bukkunte mu génn mm-hmm. simple mm-hmm. jooy mënul ànd ak lii man maa la wax ne la match bi dañ koy gañe mais il faut nga yow nga jàppale ñu arrêté lii mm-hmm. xam nga maintenant amul problème waaw mais match bi yëpp bi balaa ñuy égaliser match bi yëpp bu bu defee action ba pare nii lay def mu ngi foom borongooñ xam nga ma ko Vic déggoo lu ma la dama lay génne damay wax bu compte mu génne la de xam nga mun na pare compte match am xam nga

<laughs> xam nga autorité yu ngand yëpp ñëw parce que euh, jour euh, ñoom Ablaye Wade nekk benn xam nga. Euh, bon si le jour tamit ngay xam nga jaajëfal ma ku mat ki ngay jaaree moom gars yi mere la ba. mais ndeysaan non il a fait match boo xam ne match macha allah match bu rëy rëy rëy après ndeysaan guddi gi yëpp nelawuñu. waaw ah, guddi gi nelawuñu te xam nga fi gagneur la. sa tempérament gisé bañ kat la lu toll ni premier événement nga am final bu toll ni jajaraaf yow nga ñew jogé nawetan xam nga ñew di am yaakar ba pare commencé équipe nationale nga commencé progressé nga ñew lu toll ni jajaraaf xam nga wa ñepp di sétane ad ñepp ñëpp di xam nga muy nekk ben événement bo am da dafa mel Real de Madrid Barcelone xam nga yow nga ñew raté ci penalty bon loolu yàlla tuddoon la dafa war am manako boy buñu sonal lii wara a am lu am la jeexna un point surtout un jour ndeysaan moo ba yàlla may ñu lu ñuy may mais Vic moom as lu mu la mën a wax daal mooy jour ba am caractère ngoog waaw te football caractère la ba pare balaa ñuy wax leen caractère la ba pare. sérieux bi boo xam ni mu bëgg parce que xam nga nekk vedette fii Sénégal dafa jafe bon heureusement jege na ma woon nag jege bi ma nag moo taxoon mu am benn genre effacé wu parce que man mosuma gëm ne. nit ak bon yàlla mooy def loolu quoi da ngay jékki-jékki yàlla fàqal sa vidéo xam nga defe naa gën ñun ñi xam nga parce que nit ñi sénégalais nu ñuy jëlee nit la quoi buñ la bëggee mais doolaal suuf xam nga léegi nag yow boo mun a maîtriser succès boobu rek tu passes côté xam nga fi nag si loolu la doon travailler nag si su loolu guddeeg bëccëg xam nga ñooy nekk waagu ñaay soit ma ñëw waagu ñaay jël ko dem HLM wala mu ñëw HLM. chaque jour que je fais ñooy ne équipe nationale ñoy bokk chambre tout ça xam nga 92 sax dañ ne jour gaay né dañuy séparer sax chambre xam nga mais dafa dem carrément fekk ji ko loolu ne ko man bo bëggé ma amal la njëriñ ci Coupe d'Afrique mooy lan moom bu ma solloo bu ma solloo Mohamed xam nga Jamine fa mëna nekk ak moom xam nga parce que man mënu ma nekk ak moom depuis ba ba ñu ñëw si euh, Coupe d'Afrique bi moy ñëw nga may ne dañuy séparer chambre xam nga comme caractère ak personalité mooy xam nga mënoon a ne comme que séparé na chambre bon euh, moo am lu mais dafa dem carrément gis ko na ko saa waay boo buggee ma def normalement chambre coupe d'Afrique bu baax il faut nga bàyyi ma continuer sama waay xam nga Claude Claude ñëwaat delluwaat affaire ku mu nekkoon xam nga kon boog ça veut dire que caractère boobu mu am en dehors du terrain si vie privée bi ñëpp xam nañ ko loolu si moom Victor dafa cool du sigg xool kenn

xam nga waaw foofu nga koy fekk xam nga te defe naa ba léegi sax foofu la waaw kay kon boog xam nga kon boog dafa nekk loo xam ne euh, gis naa ñoo xam ne yàlla dafa leen may rek jékki-jékki rek commencé toxu waaw mais moom bu mu ko xamee ba léegi ba tey man ba léegi man Vic nu ma joxee cër man dafa ma yéem sax ba léegi ni may wax ah, yoon yi waaw ba léegi man dama man damay ne est-ce que ndax mérité naa loolu xam nga mais yéen ñëpp la moom dama leen di dama leen di ñaanal suñu borom rek waaw comme nu ma leen di faral di wax rek bàyyi leen suñu borom mais Vic moom macha allah as macha allah. mais léegi rôle nga joué Victor ngeen bokk Sénégal 92 Victor dem ba di joué ay ñoom Jules François Bocandé ay ñoom euh, joueurs yu mag yooyu yi nga xam ne ay icône lañ ci football joué championnat France te moom championnat Sénégal sax defe naa su mu est-ce que joué na ale ba mu ba mu jeex. comprendre nga waaw moo taxoon léegi bon lan nga ko pour man euh, lan nga ko comme ku loo joxoon boppam ci tàmbale bi ci door bi ban rôle nga doon joué ci moom mu am complexe ak ñooñu te buy joué ci match coupe d'Afrique yi da ngay gis muy imposer boppam am na benn action boo xam ne def na ko ci biir coupe d'Afrique bi je me rappelle parce que ñu doon doon yi comprendre nga mu def benn benn action boo xam ne stade bi ñëpp jug taxaw. mooy xaw ma ba xam di nga ko fàttaliku benn benn pénétration bu mu def waaw bu mu def quoi boobu xaw ma ci ban match la maanaam dama bëggoon waaw bëggoon naa ak match bi mu dugal defe naa contre Kenya dugal na but waaw loolu bëggoon naa daal nga nga wax ma comme boo leen li mu doon wut naan ngeen bokk chambre loolu sa ay conseil ak sa ay yaa ko doon domte wala yaa ko doon buux yaa ko doon may fit wala qu'est-ce parce que booy waagu ñaay la tàppet la booy boobu <laughs> musu ko kenn musu ko àttee tàppet la woon ma xam ne nag li tax mu dénkoon la boppam xam naa bëggoon na nga yokk ko comme yow grand face nga <laughs> comprend nga waaw moo taxoon xam naa mu jege la <laughs> mais as as euh, as non man a ah, yow as xam nga du baax nag ragal. non bii ragalul ragalul cest à mooy lu mu la wax rek dafa réservé woon. toog di wax maa ngi sant suñu borom. parce que yàlla mooy defar nit. as yàlla may na ma talent mhm. waaw man dama am talent ba xam ne am naa talent gars yi dañoo wax ma ne la man man gëlu njaago laa man am talent mhm. parce que mhm. poste bu di mënti jouer tamit dama koy jouer waaw poste bu nit mënti teg dama koy jouer parce que ci numéro 10 numéro jour xam nga du excentré parce que sama avancement dañu am problème du tamit latéral bi nga xam ne tey gars yi moom lañ ma xama mais da waaw dama la c'est-à-dire Vic mënul fekk ku man lu muy ragal parce que dafa am loo xam ne yoo xam nga lu may wax Vic bu muy ñëw bien que vrai xale la mais talent du xale xam nga talent boo ko xasam du affaire âge waaw du affaire âge waaw njal la euh, ñoom bokk la ñoom Roger Mendy man ak ñoom grand yi frotté woon nañu parce que ba étant junior laa ñëw di frotté grand yi xam nga bokk ker 86 ci 40 jours sélectionné yi amul dara lu ma kii parce que man dara fees sama bët ku ngay àndal dafa yegg fu nga bëgg waaw dama jaar foofu bi ñëw fekk si moom kon boog day gën a yomb si moom parce que talent bi mu fi yar baa ngi fi parce que boo amee sa ñaanu waajur rek damay ne kon li sa yomb na bi bu ñu ñëwee dama ko carrément coupe d'Afrique eh, ay coupe d'Afrique la football la dafa mel ni championnat lañ ne waaw sélection nationale la nag ñëpp nag yemee nag il faut nga libéré wu booy bu ñu nekkee chambre dama ko la nga sentir yow mu ne non fu mu ne ne mën a xolal

Kumbar Gisen nangam nangam Thierno Youm la nu mu tuddati régime bi di affaire yoy yëpp yalla mo tudon tey nga bokk ak ñom terrain loolu fierté la. fierté la nga bokk ak grand yu tere kon boog boo bokk grand yu tere war nga mëna exploiter loolu waaw parce que indana ndaanaan ñu retrouver non la Victor libéré wu ba ski bi affaire bi xam nga def kan bu tol noonu étant jeune xam nga imposé bopam ci kan bi ndax lan

man moom gisuma benn match boo xam ne euh, diis na si man waaw kon boog waaw kay kon boog man bu ma taxawee mooy lu ma leen di wax chaque fois rek eh, gars yi match quatre-vingt-dix minutes la nañu respect arbitre mais ñoo mën ñëpp waaw ñoo mën ñëpp léegi nag nag loo mën ñëpp nag gars yi ku nekk nag na nga def sa sa devoir dig nag loolu mooy ni que point fort bi nga xam ne bu mu ñëwee bien que vrai grand yi xam nga parce que dama ko ne grand yi fu ñu toll nii mais fa nga bëgg a dem ah boo bëggee dem nag si kaan bi ngay yokk dose bi dem si yoon. moo tax Vic affaire am gaaw waaw parce que nag mooy lu ma la commencement rek mooy Vic bu ma ñëwee jox boppam amul dara lu mu fi téye xam nga am na ñoo xam ne dañuy joxe sa rocc làmmiñ ñi xamante ne waaw mais moom dafa ñëw joxe lépp lu ma wax lool la lu ma wax lool dañuy fanaan dañuy fanaan kër ga waaw Vic dañuy fanaan sama gàllay wax ko yaa mën a ko fii dañuy fanaan gàll ñu fanaan gàll parce que am na lu ñu war a toog toj dañuy toog di waxtaan guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg bu boo lu muy nekk waaga ñaar sa bariwul dañuy dugg génnaat xam nga stellement mais lépp lu nekkoon si moom loolu amul loo xam ne as ah, sérieusement dafa nekk loo xam ne par hasard la wala dañ ko non non lu nekk la woon waaw lu nekk si moom mu génne ko grand yi nga tasel ñooy say grand lan la lañ ay bokkaande la nous sommes fiers bokk grand yooyu terrain parce que ay icône lañu écone yooyu boo bu ñëwee tey nekk sa wet yow ngi étant jeune tu tu es ah. amoo benn pression bu nekk si yow ñoom au contraire ñoo am yow miy jeune dañ lay lépp xam nga loolu boobu nga amee boobu da koy def moo mu def kaan bu toll noonu ngay def nii boole xol yi jeex na ba pare yàlla fi ne ak yonentam waaw dara nekk fi dul yàlla ak yonentam lu waaye di def mooy li nga waxoon commencement rek baax rek moo jar nit ñi seede parce que loolu lañ fi am maa fekkee diggante 73 di seetaan grand yi keroog gis naa grand chita bu ngi invité grand bi maa ngi ko ci sant parce que seen kanam laa juddoo seen kanam laa yaroo seen kanam laa dugg see ci équipe bi xam kon boobu du question bu ma jaraaf laa porté mais lu nekk équipe bu bu ma dajaloon yooyu yëpp muy nga soi-disant gore la wala police la wala ASFA wala wala raay xam nga wala eh, eh, nu te SCB balaa muy nekk Sonacos tey SCB mboose de Kaolack affaire yooyu xam nga. Mm-hmm. grand yooyu yëpp mun naa joxe par benn benn dëkk bu euh, équipe bu ne benn benn xam nga. Mm-hmm. muy ñoom bonof yi nekkoon SCB muy ñoom Kayta affaire yooyu mais xam nga Alaaji Kayta yooyu muy ñoom tamit ñoom grand. ñoom jaxu gay affaire yooyu ñoom euh, Chita ak ñoom black yi ma gis grand yi ma gis ak ñoom Medoumar yi dama leen seetaan xam nga dama seetaan grand ñoom Jën Diouf. xam nga au Jën Fay Jën Diouf parce que turandoom. xam nga bu nekkoon Gorée ñoom tra yooyu grand yooyu. dama leen seetaan te loolu diggante 73 la xam nga balaa mooy ñëw di dugg si équipe bi si 82. xam nga kon boog dama fekkee grand yi kenn du ma nettal grand ñoom Christophe Sagna waaw kay maa la mun fierté la ñun amuñoon sunu fierté mooy du ñoo tàmmuñoon sax au jour euh, euh, étranger yi ñun bu ñuy wax suñu grand yi la ñuy donn waaw dama bëgg nag Christophe Sagna dama bëgg nag Mbaye Fall wala dama bëgg nag Grand Mbodj xam nga affaire yooyu wala dama bëgg nag Chita wala dama bëgg nag Black yooyu ñun yooyu lañ doon tiitaroo xam nga kon boobu fierté la bu ñu bokkee seetaan grand yooyu bay yeneen grand yi ñëw ñu bokk ñoom terrain yi fierté la bay ñëw tey sama génération ñu bay yéen ngeen ñëw xam nga mooy li may faral di wax seetaan grand yi seetaan nekk ak samay morom nekk ak samay rek nekk ak samay doom waaw parce que chance boobu laa am kon boog man lu bari dama ko vivre si équipe bi ki fi nekk nag muy sunu borom ci mooy sunu wéerukaay yal nañu yàlla gën a yokkal sutura waaw fu waaye mun ti nekk grand fu munti nekk si àdduna ñu ngi lay tàllal loxo di lay jéggalu di leen a jéggal nañ la nga jéggal ñu jéggal nañ la ci xol bu sedd guy di lay ñaanal tamit yàlla wàcceel la jàmm ak salaam ak foo munti nekk si àdduna yokk say njaboot yëpp xam nga ñu xam ne def lu baax rek wóor xol amul benn grand buy dox fii sur terre nekk Sénégal la ko de nekk international nga nekk à l'extérieur wala nga nekk Sénégal am nga problème ak Mouhamed Mbène non non amul grand yëpp dem la jox cër sama morom doon jox cër il faut que ñu waxante dëgg parce que grand yi war a ñëw te grand amatu ñu jot te lu ma wax grand yi ñu jot seen course yooyu lañ tal njaboot gi lañ tal fu mu ne nii léegi nag booy nga xam ne ñoom ñoo nekk si si yoon bi di dur war moy yeen sen generation bi yer war yer wara dem jege Cheikh xol fa ngeen ba affaire bi meuna dem un point surtout waaw loolu la may ñaanal ñëpp wa may ñaanal ñu as sérieusement parler man sama xol la koy tibé as victor la boy dégg gaay di wax ci biir panel bi bo déggee grand di dugg ci panel bi di wax da ngay té fier mm-hmm parce que grand yo xamné da nga leen gis seetaan leen ba paré tay mëno sa 20 ans 30 ans gisul déggoo leen tay ñoo kéro mo déggé abdou Ablaye Baye ak ñom chinois yi di wax yoy mais damay damay parce que ñoom Pape Dioum xam nga gaay yu bari yo xamné man xamatu mon sa pour ñom pour man nekk nekk su monde bi waaw mais xam nga mais panel bi waaw mom lay wax ni kon bok loolu dafa nek lo xamné lu reuy la lo xamné mënu ñu mënu nañ ci fay mënu ñu fay mënu ñu fay Mamadou Diallo mën na fay Victor parce que tey ku nekk lu nga yëg la booy déggee sa morom kon bokk loolu loolu rek mooy dëgg waaw nit ki lu nga yëg te diggante moom ak boromam ak ak ki nga xam ne moom moo ko bégloo moom yàlla rek a xam kon boog yàlla na yàlla yaa wàccee jàmm boole xol yi mu nekk benn ñun ñëpp benn lañu waaw yàlla na ci yàlla yokk loolu waaw waaw waaw ah, jërëjëf ah, capitaine moom dégg ngeen wax wax na ah, mënuñu ci teg dara ndax wax dëgg yàlla koo ne peut-être am chance fekkee ci génération yu bari len len yalla def talent permettre ko mu dem ba football ak ñom comme nimu wax rek football ak ay magam football ak ay ay ay ay say morom. jéeg say rax jéeg say dom wa lolum mom sunu borom mohammed mendi rek la ko may ci monde bi kon lolum mom dañ koy santé yalla nan alhamdullilah te jàllale na message kep ku fi nek ci bir panel bi da nga bëgg affaire bi jëm kanam kon Mohamed melni dañuy contane trop ci ñew set ci la woon nga wax ci Victor. xaar sa journée parce que yow sa jour dina ñew ndax ko ku joué ak ay magam joué ak ay moromam joué ak ay raxam joué ak ak ay domam xamna suñ ci japp woon sax mu ay sëtam waye dañ ko mujj té kon loolu jërëjëf jërëjëf ñëwaat rek waaw ci reportage bi ñi def ci Ange Marie Victor Diagne ñewon tay waagu ñay ànd ak tamit la nouvelle recrue Euh, ci ci chaîne biñu biñu biñu ñuy bi pour def émission bi suba euh, ma len koy présenter muy bigé Sy bigé bëggoon naa nga présenter sa bop pour wax euh, tay émission bi mu war a demee daal incha di waaw maa leen di nuyu. Uh-huh. c'est Bigué. Uh-huh. la présentatrice du panel. Uh-huh. bu équipe nationale. ancien joueur. merci. waaw yomb tey. waaw kon incha allah kon xam naa dañuy àgg si biir. discussion bi depuis démb la ba léegi parce que ba léegi sax mënuñu jeexal ci kër gi nga xam ni tey jii nii cosaan la ci Victor ki nga xam ni mooy jaaga bi xaritam di doomu ndeyam tey jii ni xam naa ni mu nga États-Unis waaye su mënoon teew dina teew na wax dëgg yàlla euh, moom ak Victor bërki démb la woon ba dara dul dara la avant ñuy nekk sax ay sportif yàlla def ba lépp sotti lépp am nii kon nag euh, bu ñu fi ñëwee tey defe naa ni dañ fee war a ñëw waaw ba léegi nag ñu ngi ci waa kër gi ndax jeexaluñu ndax démbul laa fi jóge mais teewul seen xër ci Victor ak bëgg Victor tax nañu ne ma aas duñ ko nangu parce que dafa am ñoo xam ne fekkuma leen fi woon ñooñu nag dañ ne émission bi di jàll te waxuñu ci tey jii nag ñu ñëwoon fii ci kër gi pour mottali émission bi ma ànd ak la nouvelle recrue bu bu panel bi kon bi <laughs> dañ ñëwoon loolu la laaj ci Vito Diagne loo xam ci moom ginnaaw moom fii la mos nekk la laaj daal ci ay la woon ah loolu moom bu leen ma ko sawar parce que li tax ma ci sawar mooy ku xamul Victor rek dégg nga ko te Victor fii la signé licence am Jaraaf dafa nekk euh, waagu ñaay mook jaago ñu nekk foofu di dem entraînement chaque guddi bu ñu fii la ñuy toog ci buntu kër gi ñuy attaaye di kaf di foo di rey biñ ne ko xam nga Victor début débém GIA la njëkk a mais après jaraaf la mujjee bi muy mujj jaraaf mbay mbeng moo ñëw fii ànd ak euh, sam papa ak keneen ñuy seet Victor fekk gisuñu ko man maa dem wooye ji Victor mu ñëw lu ma ko wooye ji mu ñëw ci lañ ko waxtaan ak moom après bi ñuy conclure fii lañ conclure rek après ñu dem mais ngeen di wax ci nit koo xamante ni nit ku sain parce tamit yàlla dëgg rek la bëgg te man Aba du ma wax ci nit lu ma xamul ci nit lépp lu may wax ci nit rek dafay fekk mu doon lu nekk lu am Victor waagu ñaay ba mu daj amul ku lekkul dërëm képp ku taxaw ne la lekkuma dërëmu Victor rek da ngaa gorewul yaa dégg da ngaa gorewul wala nga xamoo fi ngay teg sa tànk mais Victor amul képp kuy nekk waagu ñaay ku mu dul jox xaalis Victor bu musaan ñëw fii lay taxaw li may wax nii ñi ñi nga xamante ne ñoo nekk ndogu moom xam nañ li may wax ay cinq kilos yàpp lañuy jën jënd. gars dañ doon xaar sax Victor ñëw pour ñu mën a niblage honnêtement en toute sincérité tamit lekkul dara bàyyi ay xaritam lekkul dara aussi tamit bàyyi ay mboqam nit ku euh, ni ma la ko mën a waxee nit ku social ku mel noonu. wi ma benn lay doon wala ñaar. li tax ma la koy joxal Victor. waaw parce que moom moo ko liggéey. moom moom moo ko liggéey. te nit ki li nga liggéey rek. loolu ngay récolter. yàlla daraam du hasard. tey ñun xalaatuñu woon ne toog sax ba ñuy ñëw di ñu interviewé ci Victor. mais lii sant yàlla la. parce que tey bu ko liggéeyul woon lii du ko am. te toujours nañuy moytu Victor. Mm-hmm. parce que li tax ñu war ko moytu mooy nit ku nit la boo xamante ni nit ku saint la. Victor doo xam lu mu mer. Victor doo xam lu ko naqari. Victor doo xam dara ci moom lu dul ni ma la ko mën a waxee daal jullitu yàlla la. nit kuy julli la fonk diineem fonk wéema ay nitam. tey gis nañ fi ñu bari ñoo xamante dañu am xaalis tegg seeni nit. ñi ñu juddandool yarandool màggandoog ñoom teggi leen ku wéema di seeti leneen. mais Victor deful loolu. Victor fii la juddoo fii la yoroo fii la màggee. waa gu ñaay boo di tël moom ngay njëkk a gis bañ na ko ba dafa dafay wàcce boppam te pourtant amul lu mu lekkul ci ay millions amul lu mu lekkul ci xaalis mais bu ñëwee fii xool yi ma moom mooy jël sax des fois boyal boyal fourne bi pour attaaye ba loolu moo lay montre que ni moom dafa gëm wi ma àndandoo démbam quoi dañuy dem di fréquenté ci yeneen kii quoi mais dañ ko gis moom ak nu mu mën a mel ak bépp succès bu mu am même avant muy dem nekk équipe nationale ay Sénégal 92 dañ koy gis chaque jour ku koy seet fii la koy fekk mais loolu lan la leen def non loolu daf ñu marqué parce que li tax mu marqué ñu mooy ñun comprendre fii metti woon na trop quoi honnêtement entre toute sincérité te su may wax ci loolu sax gitu loh su demee Yalla dañ yàlla yàlla ci quoi mu bok ci contribution bo xamanteni def aussi tamit lu rafet yaay deug lu rafet mu def ko ci bir famille ñangeen bi man man moom baalkat laa woon. mais bu ma daan bàyyi. bu Victor ñëwee dama naan naa xaar bu Victor ñëw parce que tey xam naa ne moom. dina am xaalis. honnêtement su ñëwee day yëkkati xaalis jox ma ma dem baali ji comprendre honnêtement Victor lépp lu ñuy wax ci moom rek. ci suñu biir xol lañ koy tibbee. parce que li tax ñu koy tibbee ci suñu xol dañ ko xam démb. tey doog dikk quoi. te lépp loo gis ci àdduna rek. mu oyofal boppam nag wàcce boppam. di toog diisul te doomu aadama bu diisul rek kooku mun nañ koo jugé ni nitu yàlla la dëgg la parce que yàlla moo wax loolu dëgg dëgg la waaw dëgg la kontaan nañ trop kontaan nañ trop ci témoignage yooyu loolu lu rafet la waaw loolu moom dañ ci am mbégte loolu waaw parce que biige ba léegi des na parce que des na benn sëram tamit waaw waaw Modou Mbengue waaw kii wax. waaw ah. bi bi ñu fiy ñëw boobu man xale bu tuuti la. ñuy football buñ ñëwee fii lañ daan toog ci benn. Victor di nit ku baax wax dëgg yàlla xam lu bon lu ñaaw. kii na lu yàgg mais saa bu ñëwee fii moo nekk. jaaga dem na mun na ne ni jaaga laa doon àndal dem na ma bàyyi leen. mais chaque jour mi ngi fi bàyyiwul kër gi benn yoon lu ñu fiy def Victor bu ñu fi mayee Victor mooy ñëw maye fi Victor lu baax lu ne def na ko ci kër gi tey kër gi bu ñu tollee yàlla bañ koy defar ba di ko étage di ko def lépp yàlla new ma yàllaa ko dogal de mais ci loxoom la ko jaarale def na ci kër gi loo xam ne kenn mënu koo fàtte te kenn mënu koo ko àddina ñu ko koo fay ki ki ki mu ko lebal mi ngi koy jéem a fay te ba léegi mënu ko dab ndax def ndax kula fekk ci lu metti mu génnal ci lo xam tay ba yow tay fépp fo fu nit mun taxaw nga taxaw fi kooku ko fay def na fi lu rafet def na fi lu ba Vito ñun xamuluñ ko dara dara billahi du ci lu bon ci du ci lu ñaaw Vito du xulo du xex bu ñewé bu ñewé japp na ñàmburam bu ñewé xalé goor yi wër ko mom moy moy jël fu ne boye suma nga def Vito bàyyam boyal mooy ma dee man may boye boye ñoom ñëpp ñu tok ataaya mu may leen jàmm may leen salaam te bu ko neexoon mu ne duma ko fi def mais ba moom daal bi mu dafa mel daal yàlla daal moo ko jublu daal ci kër gi dafa mel daal yàlla moo ko fi jublu te wax dëgg yàlla def na fi lu baax yóbbu na fi tey femme ak góor bi tey bi mu koy paasal di ko jox fii argent de poche ci néeg bi bi néeg bi la ko ko joxee di ko ko fecculoo xam nga li ma la naan koo ko yur sa doom ba mu màgg war nga koo teral def def fi loo loo xam ne ñun mënuñu ko koo fay ba dañuy jéem rek waaye mënuñu ko koo fay na Victor li mu def ci kër gii rëy na de def musu xale bu ndaw sa musu fee jàppante Victor fii bu ñëwee fii lay toog jiite grand place xale góor yëpp ñëw wër ko bu amee alalam dindi na ko jox ko nit ñi fii ku fi sama mag yi ku fi ku fi lekkul teraangay Victor rek dafa fekk ni waagu ci waagu ñaay gi yàlla moo boolewul seen wërsëg waaye bi mu amee defal na ku ne te ba léegi sax mi ngi def ndax saay boo ñëwee jënd sa alal jënd ataay jënd lépp ànd ak say nawle say morom billaahi wallaahi te sosuñu luñ fi wax rek lu dëgg la dëgg moo tax ñu wax ko luñ ko waxuluñ ko lu mu deful lim liñ ko fi waxal yëpp moo ko def waaw moo ko def ah, témoignage rafet ci Victor rafet mhm. mhm. yàlla moom lii moom ku mu doyul dara dootu la mhm. waaye tamit euh, yéen tamit euh, am nañ gërëm ci yéen ndax euh, nit Euh, ngeen di def seede lii ci moom xamoon ci maanaam seede bu rafet bi ngeen def ci Victor yéen kenn gënu leen wax dëgg yàlla parce que lii moom euh, waaw wax dëgg yàlla gisuma lu ko gën a rafet ah, waaw dëgg yàlla waaw waaw ndax euh, non non parce que tey jii nii mun mënoon na leen ci bañ a fekk waaye tey jii nii def ngeen lépp xam ngeen nii ki ko def xëy na comme ni nga ko waxee rek xam nga suñu borom moom bu lay defal da koy jaarale bu wàcc jox la ko da koy jaarale ci loxo nit comme xam nga lan moo am solo dégg déggin bi ngeen am bi ngeen am ba wax loolu mm-hmm. mais am na ñoo xam ne bi ñu ko xamee noonu mm-hmm. kon ay nit ñu baax ngeen waaw dañ leen di jaajëfal di kontaan trop mm-hmm. ci suñu ñëw bi ñu fi ñëwee waaw xanaa bi boo amee loo ci yokk rek waa kontaan nañ trop vraiment kontaan nañu ci accueil bi ngeen ñu accueillir ak seede yu rafet bi ngeen def ci Victor vraiment ñu leen remercier bu baax a baax

bu bëggoon rek nga wax ci saa waay. ci mm. dëgg la xam sa sa la. te xam naa ni waa mun jekk nga ci wax ci moom. Ah, loolu moom dina ma yomb torop. Uh-huh. ah Victor Diagne moom ñoo bokkoon dëkk fii waagu ñaay mm-hmm. mu nekk vraiment ku baax ku yaru ku sincère te oyof. mu yàlla mënoon na koo jàppale mm-hmm. mu kii tuuti xeeb ñi mu àndaloon démb ak barki démb. ndax yow li ma lay wax xam nga ci dara abaa mi taxoo xam na ci dara ndaxte ñun dañoo fekkee démb fekkuñu fekkee tey xëy na nag du ñu mag mag yooyu yëpp waaw waaye nag yàlla may nañu tuuti âge dégg ko de mu doon daal vraiment ku baax mhm. baaxaayam daal xaw ma fu ma ko mën a tollale ndaxte jamono ji léegi change fi dafa gaaw démb ak bërki démb ñoo doon ànd waaye Victor mu démb mhm. mooy Victor bu tey ba barki démb mooy njaay laa ko woo di wax ak moom te heure bu ma ko woowee mënoon na maa wax ne sama sœur dama jàpp wala dara mais ñoom abaay ñi xam nañ ci dara fu ma ko fekk tooñ ko ni yëg nii yooyu yëpp mais day jàll te moom xaritam démb yi nag ñooy xaritam tey démb ba bërki démb ñii ma ko xamee woon waa waagu ñaay bii ba léegi dara changé wu ci muy jigéen nag di góor waaw daanaka daal mën na dox waagu ñaay siggi waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw loolu moom mën na koo def moom ndax wax dëgg neex yàlla moom moom hmm. amu fi sens interdit xam nga boo gisee nga dëkk fenn hmm. ba pare di fa ñemee dellu soit heure bu la neexee nga ñëw c'est parce que macha allah waaw waaye daal Victor jaañ moom ca kaw ca kanam rek ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla fan kii yokk fanam yàlla defal ko jàmmi àdduna ak àllaaxira ba pare nag kaay ma wax la loo leen xamul dafa am gërëmal waajur te gis ngeen gërëmal waajur dafa am solo ci doom doom daal foofu la ñu rawantee ki la ëpp ngërëmal waajur moo la gën a jëm ca kanam loolu rek amul amul kii <laughs> kontaan naa ci moom waaw kontaan naa ci kontaan naa ci lool dégg ngeen seede boobu comme ba léegi benn la benn wax bi la ba léegi benn wax bi ñuy wax ci Victor boobu ba léegi ñaari fan yëpp même wax bi la kon moom dañ koy ñaanal jàmm rek yàlla musal ko ci cat may ko xewal waaw. ndax ndaxte nag équipe nationale bi def na fi de. def na fi. waaw waaw 92 laa doon wax. ña joué moom ba tey jii. ah macha allah bu doon nag sama sago nag ah nañu seet nag fañ ko yóbbu ne <laughs> nga xam naa équipe bi moom ah man da koo war a mën a téye war na koo mën a téye nag ci kanam nag war na koo mën a téye te te war nañu am nag lu ñu ko ci jox nag muy cëram nag waaw parce que nag Sénégal wax dëgg neex yàlla sigil na leen sigil na Sénégal sigil na waagu ñaay gii mu dëkk waaw <laughs> jërëjëf kontaan nañ kontaan nañ kontaan nañ ci lool kontaan nañ ci lool waaw